jaajëfal nag mboolem ñi nga xam ne ñu ngi topp tafsir bi weeru koor wi dem na incha allah ñi ngi ñaan borom bi buy del si yàlla ñu fi fekk law bu koor gi amee nag bët bu set tafsir bi mooy am ngeen am ñaar fukki darsa ak juróom-ñeent mbaa yu manqué ndax révision yi munu ci jógee nag par ajjuma lay am ñu ci jaajëfal sunu jawrin Baay Umar Gueye ak mboolem ñu koy àndal technicien yeeg chauffeur yeeg journaliste yeeg way koppar yi <laughs> way koppar yi tabaarakallahu di jégglu sëriñ si di jégglu soxna yi ak ñi nga xam ne ay tafsirkat lañu macha allah yàlla yàlla defal ñëpp barkeeg tawfiix koor gi dem na bàyyi nu fi mbokk yi kon ñu del siwaat ci sunu bind yi nga xam ne mooy tafsir di ko am ajjuma jot ci waxtu wi waaye ni ñu koy baaxoo di defee ci suñu tollee ci tafsir mooy jàng al ayat door ñëw ci jéem a firi ak jéem a tekki auzu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmani rahim arrahman allama alquran xalaqa al insan allamahul bayaan alchamsu walqamaru bixusbaan wannajmu walshajaru yasjudaan walsamaa rafaaha wa wadaca almiizaan allaa tatxaw fi lmiizaan wa aqimu alwazna bilqisti wala tuxziru almiizaan wal arda wadaaha lil anaam fiiha faakihatun wannaxlu daatul akmaam walxabbu dul casfi warrayxaan fa bi ayyi aalaa'i rabbikumaa tukazzibaan sadaqallaahu l-aziim wa ballaga rasuuluhu l-kariim wa naxnu ala ma qaala rabbuna wa mawlana min ash-shahidin allahuma ij'al al-qur'ana lana fi dunya qarina wa fi l-qabri mu'nisa wa fi l-qiyamati shafi'a wa ala sirati nuura wa ila al-jannati rafiqa wa baynana wa bayna sitran wa hijaba wa ila al-khayrati kulliha dalilan wa imama bi fadlika wa juudika wa karamika yaa karamal akramin mbokk yi yàlla jàmm yàlla nekk seen ak seen njaboot noo ngi ci sóoratu arrahman ñoo ngi ci aaya deux allama al quran kon ñoo ngi ci allama al quran waaw ñoo ngi ci allama al quran nekkoon ci tomb waxyu mooy ni yonent bi alayhi salaatu salaam jote ci alquran ni yonent bi jote ci alquran loolu moo ci ci bi waasitatil wax yi la ko jote wax yu nag wax nañ ne wax nañ la étape yi nga xam ne ci lay nekk ndax yàlla mi nga xam ne moo wax yu yemb ba muy defar lem waaw yàlla wax yu yemb ba muy defar lem wax yu yaay Moussa ba mu jël liir ba def ca kees ga yónnee ko kay seet liir yi hmm. yàlla mi wax yu yooyu yépp bu ñu nee wax yu na ak nit war na noo gëm ne axakay wax yu na ko waaw euh, alxuraan kon nu ñëw ci beneen tomb muy sunu ñeenteelu tomb ci àllama alxuraan mooy almakki wal madani almakkiya mooy saar ya nga xam ne màkka lañu wàcc almadaniya mooy saar yi nga xam ne madina lañu wàcc moo tax nga dégg bu ñu daan jàngal xoraan daan suuratu nàngam makkiyatun suuratu nangam madaniyatun waaw màkka la wàcc ak madina yi màkka yi madina hmm? waaw loolu la alxuraan def ah ya wàcc màkka daa am seen uslub seeni waxin ya wàcc madina it am seeni waxin ndax sallallahu alayhi wa sallam moo tàmbali liggéeyam ba borom bi def ko ñaari màndaa borom bi def ko ñaari mandat bu doon dañ koy misaal tey ci penc mi ni muy doxe dañ daan alayhi salaatu salaam dafa def ñaari mandat mandat mu njëkk mi saar ya cay wàcc bokkut ak deuxième mandat saar yi ci wàcc mandat mu njëkk mi dafa am lum ciy def deuxième mandat mu ñëw complété ko mandat mu njëkk mi ma ngi ko def ca màkkatal mukarama def ko ci fukki at ak ñett mandaam ñaareel mu def ko ca Madina def ko ci fukki at yu manqué ay weer mbaa lu tuuti waaye daal fukki at lañ koy wax ya doon wàcc ca Makka am lu ñuy jàngale ya doon wàcc ca Madina am yu ñuy jàngale ya doon wàcc ca Makka dañ doon changer pénc mi raxasaat yi fi nekk jubbantiwaat ya doon wàcc Madina yor ay orientation yor ay orientation kon changement la ak orientation waaw rekk nag tex yiir ak tew ji waaw lu am solo la waaw yiir ak ak ji boroom xam-xam it fexe nañu ba xam ñaata saara wàcc Makka fexe nañu ba xam ñaara ñaata saara wàcc Madina wax ji ci gën a siiw mooy saar ya wàcc màkk mat nañ 86 yi wàcc ma madina mat 28 86 ak 28 boo ko boolee mooy 114 suuraat waaw yi wàcc màkk dafa doon def ay changement ci ñi nga xam ne dafa am lu ñu gëm ci ceddo jaamuy xërëm waaw ak yu nu demee alxuraan ñëw di wax ca loola ci liggéey ci ñooña di leen tontu ca la ñuy wax a isa mitna wa kunna turaban wa idaaman a inna la mabuusun loolu la waa màkk doon wax waa bu nu faatoo ñu suul ñu ci biir suuf ba ñu nekk suuf nekk ay yaxi kese mu ndax nun su boobaa daan nu dekkal loolu lañ doon wax waa màkk loolu lañ gëmoon gëm nañu dee ndax a isaa mit naa la waaye liñ ci teg mooy gëmuñu dekk a innaa la mab'uthuuna mooy gëmuñu dekki loolu nag yàlla buñ ñu ko ndax nit warte na ci kaw suuf gëm dee gëmul dekki ñi nag boo déggee ni ñu waxe mooy gëm nañu dee waaye gëmuñu dekki a isaa mit naa baat bi li mu ndax suñu deexee kon gëm nañ dee a innaa la mab'uthuuna mooy gëmuñu dekki waaw ñaari nag boo gëmee bii te gëmoo bii sa sa dund du am tawazun du am équilibre ki bëgg dundam équilibré day gëm dund waxala boog day gëm dee gëm dekki su ko defee tooñ yi ñu koy tooñ fii te munta fayu mu gëm ne bu tekki bu dekkee fayu xoññal gi ñu koy xoññal fii ci àdduna mu gëm ne bu deexee bu ñu dekkee mu fayu waaw ko defee xolam féex lu baree bare doo boo gëmee dekki da nga ko mën a muñ ndax am na tooñkat yoo xam ne bu dekki amutoon adduna tukki <coughs> am na tooñkat yoo xam ne bu dekki amutoon kon adduna tukki maa la ko wax am na tooñ yu flagrant waaw fekk nit ku jëndub terrain nga dem jën jël jëy terrain nit koo kee jaay ko def ko xaalis def ci sa porse jënd ko ceeb yóbbu sa kër ku bëgg a wax nga nga dompal ko ca ba ñëpp na cell ba ëllëg <laughs> ba ëllëg terrain boobee sunu borom sunu yonent ba nee na terrain boobu nga nangu te moomoo ko yaag ña ko bokk nangu yow yowmal xiyaam dañ koy def ci ay saako sol ko sol suuf soosa ñu sol ko ci ay saako sëf la ko ba baa ñuy dekk ba baa ñu at nit ñi ba noppi te ñeenti téeméeri at la ñuy am door noppi ci àtte ba baax na ay ku jël hectare u jàmbur <laughs> hectare suuf ñu <laughs> waxumal dara waaye sar suuf képp ku ñu ko teg nga am problème mbokk yi camion suuf képp bu ñu ko defee ci ci saako kuñ ko sëf nga am problème ko fi nangu terrain jàmbar nag nu lañ koy def dañuy gas terrain ba sab suuf sépp gas terrain ba fa suuf yam fa ndox ma ñu booli lépp def ko ci saako suuf ku ji waaw bu fekkoon nag nii la ñuy toll nii ku ñu sëf saako yooyu nga dee te dee amut su ma lay mut fiyaa wala yax yaa bu ñu dekkee dañu toll nii building communal waaw building bi building communal <laughs> building bi jàkkaarloo fi RTS nekk cet tet tet tet la nit ñi toll ñu fab saako suuf nag sëf sëf ko ko baax na moo tax a isa mit na ñooñu gëm nañu dee a isa a inna la mabusuun gëmuñu dekk moo tax ñu daan wax ne maa hiya illa xayatuna dunya namuutu wa naxya waaw wama yuhlikuna illa dëhër yàgg fee tax nu dee waaye dee gi fii rek dund gi fii rek la yem i waay ndaw moo tax gëm nañu dee waaye gëm nañu dekki gëmuñu dekki waaw moo tax eh, saari màkka kon dañu am seeni xasaayis saari madina am seeni xasaayis sunu wayjur wa alxaaji mu jib job ci lañ daan njëkk di dégg mu naan yaay li si na amunoo waa màkka madina yaayoon yaayoon naa su wooy waa màkka alxaaji mu jib job rahmatullahi alayhi mu ngoog e, boroom xam-xam yi yàlla fay leen xeet wi taxaw nañ ba xàmmee almakki wal madani ba noppi xam exemple yi ba noppi xam njëriñ yi ba noppi xam njëriñ yi <clears throat> abul xaasim alxasan ibnu muhammad habibu yi bind na ca ñu mel ni ñoom bind ca def ci yitte ju am solo ba ñu xam saari Màkka ak saari Madina waaye nun tey nun tey nii li nu wax xam saari Màkka ak Madina jëriñ ñun fi nekk ni léeg-léeg ngay tafsir nii nit yëg ne moom mu ngi Màkka ba léegi <laughs> ndax bu fekkee alxuraan yaa li seen amuna bàyyi leen carte yow ba léegi yow yaa ngi carte yaa nga màq màq yow gàddaaye góo yàlla si na amunoo bàyyi leen gisaane yaa ngi gisaane lu ba léegi yow yaa nga màkk ma xamru wal maysiru wal ansaabu wal azlaamu ñeenti yëf la sunu borom boole tere boo leen bàyyee jóge nga màkk yaa ngi ma jëna boo leen bàyyiwut nag yaa nga màkk ba léegi mbokk yi nun ñii di wax ak yéen ñi déglu am na ñoo xam ne fi ne ñanga nga màkka te yonent bi gàddaay dem Madina ña desoon màkka suñu borom déngal la wax ci ñoom kon des màkka wóorul kon nu ñu xamee ne ñun ña nga Madina moo yaayu si na amuno bàyyi leen ndàngam ñu ne bis na tey bàyyi nañ ko yaayu si na amuno def leen ndàngam ñu ne bis na tey la ñuy tàmbalee def loolu waaw ah, fa hal antum muntahuuna ndax da ngeen bàyyi li ngeen di def ñu ne ko naa yaa rabb bàyyi nañ li ñuy def rek su boobaa ña nga madina ñun ñépp fekk fa alayhi salaatu wasalaam waaw fii ne am na ñu dëkk madina te ña nga màkka arab yi am na ñoo xam ne fi madina la am kër waaye nag ña nga loolu la màkka ak madina makkiyatu nag madina di di di di di di di di di jariñ nun tey ji loolu la ñuy jariñ yépp saar woo xam ne wàcc na màkka yaayoon naa lay wax yépp saar wàcc madina yaa si na amunu lay wax yaa si na amunu bàyyi leen nangam yaa li si na amunu bàyyi leen nangam jigéen joo gis du du muur aw yaramam du sol lu jot du sol lu yaatu du sol lu fatt du muur boppam ñëwagul Madina oh <laughs> est-ce que nogo yi kon ñëw na Madina est-ce que la akbar ñëw na Madina ndax yaa ayyuhan nabiyyu qul li azwaajika wa banaatika wa mu'miniin yudnina alayhinna min jalaabibihinna waaw tabaarakallah moo tax su li ma koy waxee saa su nekk rek boo ñëwee ñun sunu rajo Sud FM eh, sunu jànq ji fi jot a dem eh, Màkka ku ñëw rek Madina ngay wàcc <laughs> waaw gisaguma ci sunu rajo bi kenn ku dem Màkka te ñëw dem Màkkaam nga amul eh, impact yu mu def ci moom waaw ba ñëwee ndey mareem kaalaam gawoon ca màkk ba léegi dañu gut ba ñëwee sama technicien bi aja isa kaalaam ngam tegoon ca màkk ba léegi dañu gut daadu mi dem daaw <laughs> kaalaam nga dañu gut ndey xadi kaalaam nga dañu gut et cetera ku dem rek boo ñëwee daal xam ne euh, fii daraa ngi fi wax naa leen tam ne professeur ji bi keroog ba mu siyaaree alayhi salaam daa génn rek taseeg man ne ma fii laay bàyyee tox ma ne ko déet waaye mu ne dudul dugg sama gémmiñ gi de ndeysaan ma bég lool na bàyyi ibra jëy béggee woon ca <laughs> mbokk ma ne koon ibra mu ne ko jëy mu ne ko ndax yëg nga ne bàyyi naa tox bàyyi ibra ne ko déet waay mu ne ko waaw bàyyi ibra daal ne allahu akbar moodu <laughs> mu ne ko labbayka mu ne ko demal ca takki dugub yooya ca asakaya nga jël bu mag ba yët ko dégg nga xale ba dem jël dugub jënd ko cëpp pour jox ko ki ne bàyyi na tux mu ne ko <laughs> mu ne ko gën laa yor léegi gënn tux maanaam kon bàyyi na cigarette mais day tux gën bàyyi bi ne moodu mu naa ah, mu ne ko dellal takk bi ca <laughs> mbokk yi xisa bu day waar waaye eh, ku dem màkka ñëw dem dina ñëw war naa am lu mu def ci yow kon saari makk yi ak saari madina yi ñun suñu jon ñu tey loolu la ñuy jëriñ Ousmane Sari male suñu doom jële ca wala jarbaat ca Espagne yàlla na ko yàlla yokk wér te soqali la muy def te ubbil ko bunti xéewal Ousmane su fekkee tey yu nuy tere gone yi caq yeek lam yeeg tuba yu foq yeeg singom si dul sàppi mukk bu fekkee Ousmane bàyyi na yooyu Ousmane ma nga Madina su ko bàyyiwul nag ma nga màkk ba tey waaw Usmaan jógal jógel kon màkk dem almadina <clears throat> eh, boroom xam-xam yi def nañu yitte ju rëy ba xam la wàcc màkka xam la wàcc madina xam la ci am ak wuute xam aay yi nga xam ne màkka la te dugg ci biir saari madina yi ak aay yi nga xam ne madina yi la te bu dugg ca saari màkk ya lépp borom xam-xam yi xam nañ ko hmm? ak saar yi nga xam ne dañoo wàcc màkka yor madina ak saari yi wàcc madina yor attey màkka ak saar nga xam ne dafa am lënt-lënt ñi ne màkk ñi ne madina ak saari nga xam ne dafa am lënt-lënt ñi ne Madina ñi ne Makka saar nga xam ne dañ koo def Makka jóge Makka jëm Madina ak saar nga xam ne dañoo jóge Madina jëm Makka boroom xam-xam yi dem nañ ba xam saari yi wàcc guddi ak yi wàcc bëccëg xam nañ saar yi wàcc noor ak yi wàcc nawet xam nañ saar yi wàcc ci ci ca ca ca ca kaw ga ak saari wàcc ci taax yi lépp boroom xam-xam yi xam nañ ko mbokk yi lépp boroom xam-xam yi xam nañ ko lu tax allama alquran arrahman allama alquran mhm. euh, loolu kon ci seen liggéey la bokk ak seen taxawaay waaw euh, bu ñu limee saari yi nga xam ne kenn wérantewu ci ne ñoom madina lañ wàcc ñaar fukk dañuy lim ne albaqara ali imran nisa maida al anfal al tawba an nuur al azab muhammad sallallahu alayhi wa sallam al fatx al xujuraat al hadid al mujadala al xashr al mumtahanna aljumaa almunafiqun altalaaq altahrim ak annasr ñaar fukki saar yi moom amul benn werante ca boroom xam-xam ya nee nañu ñoom euh, Madina la ñu wàcc buñ ca amee gu wute mooy fukki saar fukki saar bu ñu amee wuute ñu naan fee ñu fee fukki saarak ñaar alfatiha ar raad yi ñu nekk di tafsir as saf at taxaabun wala mutafifin al qadr al bayna al zalzala al ixlaas loolu boroom xam-xam yi wax nañu ne yooyu moom am nag wuute tuuti ci ndax màkka lañ ndax madina ah, la ñu wàcc mbokki maa ngi ci suratu arrahman maa ngi ci aya 2 te mooy àllama alquran wépp saar woo xam ne ne bokkul ci list bii ma doon lim ñoom jàpp ne ne yaa nga wàcc ca makkatal mukarama mat nañu juróom-ñett fukki saar ak ñaari saar boo ko boole lépp nekk téeméeri saar ak fukki saar ak ñeenti saar mhm. léeg-léeg ñu dem ci aw saar wàcc Makka ñu fekk ca euh, walla ñu am ay aayaat yu wàcc Makka ñu fekk ko ci biir saari Madina loolu boroom xam-xam yi xàmmee nañu ko ndax àllamal quraan a tax buñ ci doon joxe ay misaal ba demee ci sóoratu al anfaal nee nañu ulama am na laa yuñ ca génne wa is yamkuru bika lazina kafaru li yuthbituuka aw yaqtuluuka aw yuxri aw yuxrijuuka wa yamkuruuna wa yamkurullah wallahu xayrul loolu boroom xam-xam ne lan faal madina la waaye laay ji ci biiram màkk la waaw moo tax da ngay dégg ñu ne sóoratul anfaali makkiyatun illal ayaat nangam nangam nangam waaw tabaarakallah boo demee ci ñoom euh, Oustaz Samba Diagne ndeysaan yal na ko yàlla yokk wér bu nuy bind seen kaamil yi noonu lañ koy bind ñoom ci bindum mbindum mbindum daara waaw rasmul usmaan yi Eh, ba tey ñu gis lu mel noonu waaw eh, saar woo xam ne bi aleyhi salaatu salaam di gàddaay bi saar wi wàcce eh, am na lu ca wàcc lu mel ni yaa ayyuha nabiyu xasbuka allah wa man min al mu ne ko bu xare jotee ba ngay génne xare ji naa mu ne ko na la yàlla doy mu ne waaw mu ne ak ñi la topp te gëm la keneen ku dul ñii bu ànd ak yow yàq la ngay liggéey waaw ibnu abbas mu ne annaha nazalat lamma aslama omar ibnul xataab waaw mu ne keroog bu omar dugg ci lislaam la la laay jooju wàcc kon su boobaa da ngay wax ne kon ca màkk la wàcc am na aayaat yoo xam ne madina lañ ñu koy fekk ca saari màkk yi saar yoo xam ne walla aay yoo xam ne madina lañ ñu koy fekk ci biir saari màkk yi loolu tam borom xam-xam yi gëstu nañ ci ba mën koo génne ba xam nu mu demee hmm? waaw waaw mu ngoog wa min amsilatil ayati al madiniya fi suwar al makkiya suratul an'am suratul an'am ca la bokk ibnu abbas nee na nazalat bi makka jumla waaxida lépp a wàcc makka fa hiya makkiya ba mu des ayaat yii qul taalaw atlu ma xarama rabbukum aleykum alaa tusriku bi shay'a balaa yooyu jeex ba ca ba ca wala tattabi subula fa tafaraqa bikum an sabili dalikum wasaakum bihi laalakum tattaqun ak itam haazani xasmaani ixtasamu fi rabbihim mbokk yàlla na jàmm yàlla nekk seen ak seen njaboot noonu ci suratu arrahman noo ngi ci aaya 2 noo ngi ci aaya 2 mhm. léeg-léeg nga gis saar woo xam ne màkka la wàcc yor atteb madina wàcc wàcc màkka waaye yor melokaanu saar wàcc madina waaw yaa ayyuhan naasu inna xalaqnaakum min dakarin wa unthaa wa jaalnaakum shuuban wa qabaa'ila li taarafu inna akramakum indallaahi atqaakum fa innaha nazalat bi makka yowm al wa hiya madaniya li annaha nazalat baada al hijra saar wi borom bi wax ne ee yéen nit ñi dama leen bind ci baay ak yaay yéen ñépp am baay yéen ñépp am yaay ku ci ne bokk ci xeet bokk ci giir shu'uban wa xabaayil dama bëgg ngeen xamante li taarafu ngir ngeen xamante waaye ndey jaag baay ja shaabo xabila nee na foofu du départ bi wala du arrivé bi arrivé bi mooy inna akramakum indallahi atqaakum ku ëpp jom gën sa morom ku la ëpp jom gën la ne saar woowu mbala aay jooju ca màkka la wàcc yomal fat fa innaha nasarat bi màkk yawmal fath wa hiya madiniya te saar wi te te laay ji madina la ndax ginnaaw gàddaay gi la wàcc te lépp lu wàcc ginnaaw gàddaay gi rek madina yi lañ la tudde mu nga beneen tomb bi ci bunt boobu yi wàcc madina nekk melokaanu màkka wàcc madina nekk yor melokaanu màkka ak yi nga xam ne dafa dafa lënt ñu naan màkka la ñu naan madina la wa id qaalu llahuma in kaana haada huwa alxaq min indik fa amtir alayna xijaratan min alsama aw itina bi adabin alim ba yéefar naan màkka naan yonent bi bu fekkee lii dëgg la tawal ay doj ci sunu kaw waaw ñu ne yonent bu fekkee li ngay wax dëgg la neel yàlla mu taw ay doj ci sunu kaw saar saar laay yooyu ci ñu wax màkka ñu naan madina ci la ñu bokk am ñu naan madina la ñu naan màkka la allazina yajtanibuuna kabaaril ithmi wal fawaahis illa lamam ca la bokk mooy sunu saar weenu génn mu ca surat najmi asuyóot yi nee na fa inna al fawaahis kullu danbin fii wal kabaayir kullu danbin aqibatuhu naar wa lamam maa bayna al xaddayni min adunub wa lam yakun bi makka xadd wala naxw cey waaw asuyóot yi moo ko jàngale noonu ne na fawaayis mooy bàkkaar boo xam ne day jar duma borom kabaayir mooy bàkkaar buy jur dem sawara mu ne lamam mooy bakkaar bi nekk ci diggante ñaari bàkkaar yooyu te ba ñuy nekk màkka bàkka maanaam atteb duma ak atteb rey wàccagutoon peine de mort booba wàccagut waaw peine de mort booba euh, yi nga xam ne dañ leen a jàppee màkka wala bokk la ñu jëlee màkka yóbbu madina sa bisma rabbikal aala ca la bokk yu jëlee madina yóbbu màkka waaw ca la baraa a bokk muy sóoratu tawba nga xam ne moom dong moo amul bismillahi rahmaani rahim li wàcc guddi ak li wàcc bëccëg li ci guddi ak li wàcc bëccëg waaw boroom xam-xam yi alxaasim alxasan eh, ibnu muhammad ibnu habibu nesabori ak ñi mel ni ñoom bind nañ ci xam-xam boobu waaw oustaz omar diop li ñu wax ni moom eh, moonu ko gën a xam inna fi xalqi samawati wal ard wax ci laa fi leyli wa nahaar la ayatin li ulil albaab ay jooju alayhi salaatu salaam moo toog di jooy sunu yaay ja Aysa na ko waaw sëriñ bi looy jooy yaa rasulallah maa yubkiika qaala wa maa yamnauni an abki wa qad unzila alay alayya hazihi layla mu ne ko lu ma lu tax du ma jooy te guddi gi wàcc nañ ci man inna fii xalqi samawati wal ard wax ci laa fi layli wa nahaar la ayatin lu ulil albaab mu ne ko liyam a jooyloo hmm? waaw loo ko jooyloo yàlla mu ne wuute gi asamaan ak suuf di wuute walla bind gi ma bind asamaan ak suuf ak wuute gi guddeeg bëccëg wuute ah la ayaati li ulil albaab màndarga la mu war a wan ñi am xel ne yàlla doo ko man du ay chinois du américain hmm? albuxaari mi ngi ne ci hadisu omar mu ne laqad nazalat ala al madina ah balabag alayya layla suratun hiya ahabu ilayya mimma talaat ali shams dafa xëy benn bis ne leen de wàcce nañ ci man saar woo xam ne moo ma gënal àdduna ak li ci biiram li jant bi tim lépp saar bee ma ko gënal seetet bàyyi moo du jaxate yonent mu ne li jant bi tim lépp saar bee ma ko gënal saar wan inna fataxnaa laka fatxan mubiina mënun nanu saar bi gënal kon sunu kër yi gënal nu sunu mbedd yi gënal nu sunu tëli ginnaaw saar bee ko gënal àdduna ak li ci biiram waxul saar bee ko gënal jëppal de wala sikaab déedéet yonti boo xut saar bi moo gënal Dakar daf ne saar wee ko gënal adduna ak li ci biiram waxul Sénégal waxul Afrique saar wee ko gënal adduna ak li ci biiram hmm? waaw saar yooyu am na ci wàcc noor am ci wàcc nawet hmm. boroom xam-xam yi dem nañ ca ba xam yi wàcc noor ak yi wàcc nawet waaw inna allazina jaau bil ifki usbatu minhum usbatun minhum wala minkum ngeen baal ma tuuma jooja ñu doon teg di ko teg ci deru jigéen ju tudd suñu yaay ñu wax ne laay jooju ci lool lolli la wàcc li nawet bi di bëgg jeex lool li mooy nawet bi di bëgg a jeex sëb yi ñor nañu gajaanga yi ñor nañu ku ku ku songub tool man caa am loo booloo waaw donc ndaay la ci Kaffrine xam ne li wax waaw ba ca lahum maghfiratun wa rizqun karim ak yaayu lu si naa munu uskuru ni'matallahi alaykum is jaa'akum jaa'atkum junudun fa arsalna aleykum rihan wa junudan lam tarawha te mooy xeex ba xeexu xewoon ci ahzab boroom xam-xam yi ñoom tam wax nañ ci loolu ci ne mi ngi wàccoon ci lolli waaw boroom xam-xam wax nañ ci li wàcc ci taax yi ak li wàcc ca tukki ba walla ca kaw ga hmm? bokk na ci yooyu wallazina yaklunzuna zaab wal fidda wala yunfiquuna fi sabilillah hmm. ne nañu laay jàngi wàcc ci benn tukki ci tukki yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak tàmbalib suratul xajj waaw yonent bi ne cib tukki sunu borom indil ko laay yii ñi nga xam ne dañoo am xaalis te seen xaalis kenn du ci liggéey ko dul ñoom ñi nga xam ne dañoo am xaalis mbokk yi te seen xaalis kenn du ci liggéey ku dul ñoom duñ ko investir fi sabilillah nit ñi liggéey ci xanaa jël xaalis ba def ci ay yëf yoo xam ne ñoom képp kott dong ñoo koy liggéeyee sunu borom ne na deeatee mu duma leen ñu dee dong moo tee mu duma leen dañoo bëgg ab xaalis ku ko am nga def entreprise nit ñi di ci liggéey nga tasaare xaalis bi ñëpp jot ci waaye doo ko def loo xam ne day doon loo xam ne yow képp kott dong waaw xam naa am na ñooñ groupe ba moo ko tuddoon ñu ne àdduna tukki na nekkoon ma tudd leen <laughs> waaye daal na ku ne xam boppam rek ab xaalis kenn du ko am sunu borom yàkkal lu bare noonu nga yemale ko ci sa bopp waaw Ablaye Mbaye Peex yàlla na ko yàlla yokk wér nee na ku yàlla tibbal kuddug luus daf laa wax añal ba suur mu ne ku yàlla taaj booli daf laa séddaleloo lay wax na dëgg <laughs> daf laa séddaleloo waaye borom xaalis yi ndeysaan yàlla na yàlla yërëm leen jékki-jékki rek ñu ne diw dem dem na ah waaw kañ la dem waaw démb lañ ko doon rob diw dem na kañ la dem suba la sarax si rek waaye sunu borom nee na allazina yaknizuna zahabu wal fidda yaa ayyuhallazina amanu mu ngoog dafa wax ne wallazina yaknizuna zaaba wal fidda wala yunfiquuna fi sabilillah am na ñoo xam ne fi ne mbokk yi ay milliardaire lañu waaye defuñu dara dañoo bëgg ñu ubbi entreprise ñenn ñoo société ñenn ña nangam nangam ñenn ña nangam nangam ba ñépp mën a liggéey ci liggéey C3S mii di ànd ak man ci waxtaani fajar yi ak lobb maam jaara mii di ànd ak man ci tafsir bi mën naa wax ne ñooñu seen alal noonu ñu def la yàlla bëgg nit ñi am alal di ko def waaye am alal xoom ko képp jënde ko loo xam ne boo ko luyee kenn du ci mas ku ah, kenn du ci liggéey sunu borom ne na alal ji joxuma la ko pour yow képp dama la ko joxoon pour yow yaa ak say bokk ak say dëkkandoo say am di jàmm ak waa réew mi waaw moo tax ñooñu bàyyi leen ci xel ubbi leen ay entreprise ubbi leen ay societé investis leen seeni alal yéen ñi nga xam ne yéen a jiite bu nit yoree alalam bëgg koo def fenn pour am ca dara rekk waaye sécuriser leen ko loola muy def moo gën mu def ko ca alal ja seey ay nit jël ko ñenn ña tuddee ko ay commission ñenn ñu tuddee ko leneen luñ ko tuddee loolu baaxut baaxut de waaw waa joo xam ne dafa bëgg a bay mu soxla ah, mu soxla vingt tonnes jiw am kenn ko soxla ne koo xam ne moom nee na dafa bëgg a bay te bayut soxla vingt tonnes jiw kenn ki ñu jox ko jiwoom jaayal ko ko def ko xaalis jox ko ah loolu baaxul ci mpenc kee soxla pour jihi ko moom ñu ne ko mënoo am lu toll noonu loolu bunt boobu lay ubbi kon sunu borom bëgg na yunfiquuna fi sabili waaye ki nga xam ne dafa jol alalam def ko yunfiquuna fi sabili la nga xam ne def moom dafa jàpp ne su is defee usine sàngam égal nangam su defee nangam égal nangam loola mu xalaat ba def ko dañ koy sécuriser d'abord lu ca roose moom mu moom ko waaye def sa yëf ba noppi jenn waaye ñëw fa am ci lu ëpp la nga cay am looloo jaaduwut looloo jaaduwul waxoon nañ ko jamono yi ñuy jënd ceeb ne dañ koy séddale nit ñi ca ca corona ba yàlla bu mu fi ñëwati waaw loola bëgg wut ay kaar wala ba bëgg wut ay camion laa bëgg a wax waaw gaas wàllu camion ya ñay liggéey ci camion ya lépp pour ñu yët ñu yët Alioune Sall vingt cinq kilos ceeb sama vingt cinq kilos ceeb yooyu wala cinquante kilos maximum ñu war ma ko yët ca daara ja léegi luyel ma luyel ma camion gasoil ak gaa yu koy indi ak nangam nangam léegi sama vingt cinq kilos yooyu li muy jar ci bitig bi moom fukkam daanaka lay jar door a ci man loolu nag ci pénc mi vraiment xaw naa doy waar waaw la ca tege mooy xam naa ceeb yooyu joxoon ko xaalis ku ne jot sa bopp su moo ko gën a lool bañ ko junjee ci daara ji oustaz Mbàkke si la laaj ma ko ci albidaay yàlla na ko yàlla yokk ma ne ko koy def loolu doo jox nit ñi ceeb ndax réew mi léeg-léeg nga ne diw yóbbul ma cinq tonnes ceeb daaray alimran sama daara lay misaal daal koy jox njëgu cinq tonnes njëgu cinq moom mu jël ceebam yi nga xam ne 1924 la ko amoon ak ceeb yi nga xam ne moo ca tege boole yépp sol ci saako yët ma waaw jigéen ñee tànn une semaine door a am luñ sóor loolu tam alla si nekk sunu saabal fidda ala kulli xaal laa ji daal daa fekk yonent bi ci tukki waaw mu jàmpal ko lool wax ko ko pour buy dem yóbbaale ko <laughs> ngeen baal ma mu ngoog mook yaalu si na amunu yaayoo naa si kon ngeen baal mi ittaqu rabbakum inna zalzalata saati shay'un azim mbokk yi yàlla na jàmm yàlla ni kit ak seen njaboot saari madi makka madina xam ko lu muy jëriñ la ci jiitu mooy al istiaana bihi fi tafsirul quran xam ne saar wi mak euh, makka la wàcc mbaa madina day dimbale kii tafsir alquranul karim mu sukkandiku ci ndax mu xam mawaqi un nuzul tusaaidu ala fahmi l aaya wa tafsiriha tafsiran sahihan xam ne xam saar wi màkka la wàcc dana dimbale kii tafsir xam ne saar wi madina la wàcc dana dimbale kii tafsir ndax dana xam milieu bi mu wàcc dana xam xeet ba mu wàcc te euh, fiqhul waaqi dafa baax ci koy kuy wax ak ki nit waaw maanaam xam sam pénc day tax nga war a wax ak sam pénc waaw xam sam pénc day tax nga mën a xam wax ak sam pénc waaw loolu suñu mag ñi yéeme nañ ci Cheikh Islam Hadj Ibrahima Niass Mbali Seydina Limaamu Laay mi ci suñu ginnaaw waaw euh, Cheikh El Hadj Malick maam Sëñ ak mag ñi mel ni ñoom xam seen pénc tax na liñ am ci pénc mi kenn ku dul ñoom mënoo ko am ndax doo xamee pénc mi noonu maa la ko wax waaw ñaareel ba ci njëriñi saaru màkka ak madina xam leen euh, taduuqu asalibul quran wal istifaada minha maanaam day indi cafkol tem-tem ci noppi kiy déglu tafsir bi ak itam day xam uslubu daawa maanaam euh, technique de communication ndax saaru makk ni muy communiquer yaa ayyuhan naas bokkut ak bu Madina ni muy ni muy communiquer yaa ayyuhallazina amanu technique de communication boobu nga xam ne euh, saar wi wàcc màkk ak wàcc Madina bu ko tafsirkat bi toppee da koy da koy yokk da koy yokk euh, frek day tax fréquence am mën a dëppoog fréquence yi gars yi ba mu tolloog seeni i loolu bokk na ci njariñal saar wi màkk la saar wi madina la ñetteelu njariñ bi al wuqufu ala sira annabawiya min xilal al ayat al quraniya euh, saaru màkk ak saaru madina day tax nit ki mën a stope ci dunduk yonent bi siirab yonent bi ci biir ayat quraan yi mu mën caa amee loolu te siira xam ngeen leneen la waaw siira xam ngeen leneen la moo tax maam Cheikh Al Hadj Malick bind ci xilaasu zahab bi fii siirati xayril arab waaw yàlla na ko yàlla def ci téere yi jëfam mu ngoog yàlla nu yàlla dimbale tabarakallah eh, al farqu bayna al makki wal madani lan mooy seen wuute yatabanna ala ra'yi inda ashaabi anna ma fi al qur'ani min qawlihi taala yaa ayyuha nnaas makki wa ma fihi min qawlihi taala yaa lisina amanu madani mu daal di yomb xaat bu sunu borom ne yaa ayyuha nnaas waa màkkaa ngoog yaa ayyuha lisina amanu waa madina ngoog léegi nag nun ñii di tafsir ak yéen ñiy déglu mbokk yi mbaa jóge ngeen madina mba màkk kon mbaa gàddaay ngeen mbaa gàddaay nanu Hmm. waaw moo tax yooyu am solo lool itibaaru zamani nuzul ca makka am na njariñ lool itibaaru makkanu nuzul am na njariñ lool ah waaw itibaarul muxaatab am na njariñ lool yaa lasina amanu yaa yoon naasu ngoog mbokk yàlla na jàmm yàlla nekk seen njaboot maa ngi ci suratu arrahman maa ngi ci aaya deux maa ngi ci aaya deux moo tax sunu borom soo seetloo ci ni muy communiquer bi mu ne ya yaa ayuha nnaas ubudu rabbakum alladi xalaqakum wallazina min qablikum laallakum tattaquun Hmm? ak yaayu naasu kulu mimma fil ardi xalaalan tayiba boo leen boolee da nga xam ne communication dëgg nga noonu suñu borom mu ne ee yéen nit ñi jaamu leen seen borom mi nga xam ne moo leen bind bind ñi leen mag laalakum tattaquuna dana tax ngeen am jëm ja nekk ca mag ña loolu dana tax ngeen am jëm ja nekk ca mag ña ndax mag ña dañoo amoon jëm kon yaay waa naasu waa makka yaa lisina amanu waa Madina teg leen seen baram foofu ñaan suñu borom ñu dund ba àjjuma te weesu ko ñaan ko ma def jàmm ci réew mi ak réew yi ko daar yi daara yi daar yi ak dongoy daara yi ak yaayi daara yi yan yàlla sàmm nu sàmm leen aar nu aar leen ki nekkoon ci wàllu xarale moo di seen mbokk Adja Issa ci tafsir bi seen mbokk Alioune Sall ak i sponsor am yal na yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir te def ci suñuy poos dara wa axiru wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.